mbokk yi dal leen ak jàmm kenn du am fit ba ëpp fit ki nga xam ne moo di Marème Tandian moom mi fës si xët wu njëkku yéenekaay bi nga xam ne moo di L'As Quotidien moom marem Tandian ni ki altine ba muy janoog ñi nga xam ne ñoo di àttekat yu tribunal grande instance bu Ndakaaru ñoom lañ ko doon toppee mooy li ñuy wax usurpation d'identité maanaam jël identité jàmbur di ko wuyoo moom Marème Tandian mi la seen kaay naan mu ngi doon wuyoo naan moom jabaru procureur de la république la Serigne Bassirou Gueye l'observateur naan moom mii business woman la mooy koo xamante ni bii doon dugg si ay business Maram Tandian si altine ji doon na janoog ñi nga xam ne ñoo di àttekat yu tribunal grande instance bu Ndakaaru ñu ko doon àtte nag si wàllum escroquerie yi ñi mu wuruj ñëpp nag euh, njuuj njaaj leen yéenekaay bi naan ñu si ëpp nag ay jaaykat lañ ñoo xamante ni bi dañ doon fësal seen am njaay si internet bi ñoom ñëpp daanu si kanamam ginnaaw bi nga xamante ni bi gëmloo na leen moom si boppam mooy soxna sa procureur de la république euh, Serigne Bassirou Gueye waaye loolu lépp nag ci kanamu àttekat yi moom mii Maram Tànjang weddi na ko ba seet wecci donte nangu na ne lekk na seen ab xaalis waaye nee na mosu leen wax benn yoon soxna procureur de la république la des ci biir l'observateur ak doomi Sénégal yi nga xam ne ñoo faatoo woon foofu ci diwaanu Espagne léegi mu mat juróom fukki fan yoo xamante ni bi ñoom ñu ngi foofee ba léegi kenn mënu leen indi fii ci réewum Sénégal seen i mbokk foofu si diwaanu Tambacounda nekk ci bu baax a baax ndax ñoom ñi dara bàyyiwu leen fa lu dul ab xaalis boo xam te ne bii moom lañu ñu war a fay ngir ñu ñëw fii si réewum senegal waaye lim ba toll na si 900 euros maanaam juróomi million suñuy koppar ay mbokkam nag mel ni mënuñoo fay boobule xaalis tax seen doom des foofee ba léegi si diwaanu Espagne léegi mu mat ñaari weer si jamono jooje libération del siwaat si jee ju doy waar yi nga xam ne moo amoon sa waaxi nuwaa di bu ba doomi Sénégal yu bëri ñàkkoon seen bakkan mu ngi naan nag yoon teg na loxo kenn si ñi nga xam ni bi moo jiite woon boobule trafic de migrants si diwaanu Gambie moom mi ñu teg loxo nag moo nekkoon cerveau bi bu ñu sukkandikoo si yéenekaay bi nga xam ne mu ngi ñuy fësal turam naan mu ngi wuyoo si turu Sana Marong foofu si diwaanu port bu Gambie lay liggéeyee moom mii nag li jàpp ko bu ñu sukkandikoo si yéenekaay bi moo di benn enregistrement WhatsApp boo xamante ni bi moom la doon expliquer naka la def ba daal di benn capitaine boo xam ne fii si réewum Sénégal la dëkk si diwaanu Mbour ak koppar yi nga xam ne moom la ko fay tax alkaati ya daat koy teg loxo. kër alkaati yi fii si réewum Sénégal am na ak coppandi goo xam ne moo si am laas yéene kaay ñëw naan dañoo sambule dëgg kay fi nga xam ne moo di police nationale commissaire central bu Ndakaaru remplacé nañ ko ka ko fa wuutu moo di El Hadj Cheikh Dramé moom Mamadou Ndour nag jamono ji nga xam ne ni bii ñu ngi koy teggi foofe sa bopp commissariat central bu Ndakaaru yéene kaay bi mu ngi naan mu ngi nekkoon si benn plan de circulation ba daanaka sax yeggale ko yéene kaay yu bëri jàpp ne mbirum Guy Marius Sagna mi nga xam ne dox na ay tànki ñaxtu ba yegg foofe sa moo tax ñu teggi ndombal tànkam enquête yéene naan Guy Marius Sagna kay yóbbaale na commissaire Ndour ginnaaw tànki ñaxtu yi nga xam te ne bii amal nañ ko ba yegg ci palais de la république tax na président de la république jël ab décret boo xam ne moo fa jële commissaire Ndour ci commissariat central bu Ndakaaru ka ko fa wuutu El Hadj Cheikh moo nekkoon ci AIBD yéen kaay bi naan am na yeneen i coppand yoo xamante ni bii dina am ci biir police nationale buñ sukkandikoo ci yéen kaay bi nga xam ne moo di enquête les échos naan jamono jooju ñu tegee commissariat central nekk ci ab xiifal bu xam ne tax na kenn si ñoom ñaar koy évacué Malick Biaye lay wuyoo moom yóbbu nañ ko si pavillon spécial ginnaaw Abdoulaye Touré mi nga xam ne moo xamoon si biir bureau bu doyen des juges maître Khoureyssi Ba mi leen layal nag mu ngay woote wàllu tey joxeñ baaraamu tuma ñi nga xam ne ñoo di administration pénitentiaire bi seen beneen naataangoo bi nekk si biir kaso bi di docteur Babacar Diop tax na waa UCAD ñoom it nekk si ab garaf bu métti boo xam te ne bii daanaka lancé nañ ko enseignement supérieur kay daanaka day teg a témbee maanaam dootuñu jàngale fekk teguñ loxo seen boobu leen naataangoo des si biir la Le Quotidien wax si ndox mi nga xamante ni bi daanaka am na ak dal ginnaaw bi nga xamante ni bi liggéeykatu SDE amal nañu ab grève boo xam ne yegg naa si lu toll si juróomi fan daanaka tension bi bese nañ ko bu sukkandikoo si yenn bi nga xam ne mu ngay xibaar naan liggéeykat yi teg nañ grève bi suuf li ñu bëgg kay jamono jii moo di janoog président de la république waxtaan ak moom ngir am lu leen neex si wetu ndox mi courant bi it nekkoon si ay jafe tax ñu yokk li nga xam ne moo di njëg li nekk nag loo xamante ne bii Sud Quotidien jàpp na ne dina métti lool si ñi nga xam ne ñoo di borom kër yi dem Demba Moussa Dembale si biir yenekaay bi di ab économiste di wax naan lii dina feeñ dëgg nag si li nga xam ne noonu la askan wi dundee maanaam si seen gafaka docteur Thierno Thioune économiste moom tamit si diwaanu Fajek di ko feelu naan moom kay fexe ba ñëpp mën a jotandi si courant bi dina doon loo xamante ni bii dina indi ak yokkute bu baax a baax wàññi li nga xamante ni bii moo di ñàkk gi diggante yokkum njëgum courant bi ak ndox mi nga xam te ne bi nekkoon na si jafe-jafe ak yenn si daara yi nga xam te bi yokk nañ ko tax na ba le témoin naan lu warook année sociale bi nga xam te ne bi doon nañ ko wax si atum 2018 atum 2019 moom atum yokk dëgg la ci xalima ki nga xam ne moo di Serigne Saliou Gueye La Tribune moom mi ngi dikkaat si jalt jalt yi nga xamante bii moo am si biir mouvance présidentielle bi ak kàddu yu ñagas yi nga xam ne Moustapha Cissé woon na ko si yi ñu génn waaye dafay mel ni ki nga xam ne moo di Yakham Mbaye ñëw na ngir tontu ko yàq moom Moustapha Cissé Lo musiba ak mbelengaan ne ko moom dëgg la waaye yooyu la kàddu nga xam ne Yakham Mbaye yëkkati na ko yéene dafa jàpp ne moom mi dafa gën a dugal rek ki nga xam ne moo di président Macky Sall maanaam mel ni koy wax ne Macky Sall si boppam boppam dafay defar ay faveur ki nga xam ne moo di Cissé Lo jafe-jafe yooyu nag am si biir APR tax na Walf Quotidien dikk naan moom kay pagaay dëgg moo am si boobule parti mu jox kàddu ki nga xam ne moo di Abdoulaye Ndiaye mi fi nekkoon député naan président Macky Sall kay moo war a am fulam jamono ji jëlaat parti bi si loxoom doxal dëgg ndax jafe-jafe yi yépp ñu mën see génn jërë ngeen jëf mbokk yi dig daje ba ëllëg incha allah